réew soo ko amee surtout soo koy dooraa jël da ngay wax nit ñi fan nga ko jëmee da ngay wax nit ñi fan nga ko jëmee li ban dii su fekkee ni cinq ans yi la kenn si cinq ans yi lan ak lan ak lan lay def yan objectif lay am yan moyen lay mën a dajale pour euh, atteindre objectif yooyu loolu su amul lan mooy am mooy tey nga def li suba nga def lee gannaaw suba nga def li li tubaab bi di wax pilotage à vue te loolu moo nar a am moo tax ñun ñu yàkkamti woon que premier ministre wax def saa déclaration de politique générale pour ñu xam pouvoir bi si at yi di ñëw lan la nar a def parce que wax nañ ni am na projet mais comme gisaguñu ko xamuñu fan lañ jëm au moins suñu amoon déclaration de politique générale bi danañ xam euh, fan la euh, ci nguur gi bëgg jëmee Sénégal